ma nga noonu programme ba ngoogu Sadio Mané ñancoo mi nga xam ne doomu ndayam mi ko toogal fii di njaay noo problème nag nga xam ne dajale na aw askanam yóbbu alal ju bari joo xam ne fële ca vingt minutes bi ba mu dara du ci rëcc ci li nga xam ne mooy programme dajale nga xam ne mooy ñëpp lépp biir li nga xam ne mooy programme boobee képp nag koo xam ne euh, bëgg ngaa jàppale njaay no problème man nga woote ci numéro téléphone am ko defee jàppale ko mooy jàppale ñi nga xam ne mooy social bi muy def ñu bàyyi ko euh, mu euh, belli ay kàddu ngeen continuer suivre vidéo bi jërë ngeen jëf ak doomu ndeyu Sadio Mané di njaay no problème lu andi tur yi no problème da nga amul problème waaw loolu moom am na moom njaay no problème moom mhm. amul benn problème mu àdduna mhm. Euh, te yaakaar naa ni moom moom ñu doo amul benn problème baax ñun nag amuñu problème ñu leen ñëpp jàmm ñu toog moo waral turu problème bi ah mu nekk tur bu ñu neex nag loolu am na suñu fierté la parce que adduna moom su nekkee bañ am problème ah, maanaam nga def initiative boo xam ne bu am doole la ah, bu am force la te mu nekk loo xam ne lu baax la lii euh, ku la digal lu baax li waaw donc ki ma ko digal moom mooy ki nga xam ne moo ñu boole rek muy Sadio Mané parce que loolu ñu gis moom mu koy def. ñaancoo ñaancoo gu mag googu nga xam ne ci baax lañ ko xam ci yar ak teggin ak ci ma fonk doomu aadama jël alalam itam di ko boole doomu aadama yi ndax amaana mënoon na ko am yemale ko ci mbokkam wala ci boppam waaye jël di partager ak na moo la jotee wërsëg wërsëg yi ëpp la da nga ko war a bokk ak ñi nga xam ne ñoom la yàlla boole la. dëgg la te moom wane na ko dugg ci hôpital yi. defar na hôpital defar ci jumaa yi dugg ci hôpital fekk ñu feebar mu leen di faj donc nag ñun itam ñu gis ne Sadio mu ngi ci yoon di dem te bëgg nañ bëgg nañ koo jàppale ci bépp côté boo xam ne si mënu faa nekk ñu nekkal ko fa parce que benn nit moom mënoo nekk fépp ñoo koy jàppale si yeneen secteurs di ko fa nekkal ngir liggéey bi mën di continuer moo tax rek ñu daal di xalaat xalaat bi mën ni def fan si club Sadio Mané du njaay noo problème mais sa grand boobu lan la seet waaw grand boobu moom sama fierté la kii moom mais bu dul euh, dara dama ko bëgg te yàlla tax ndax drapeau Sénégal muy suñu suñu nationalité teg ci drapeau bi bu sori laa koy denc ndax drapeau bi daf maa may lu bëri ci sama dund drapeau bi laa gisante ak Sadio Mané bi may ñëw damaa bàyyi yére mam foofu yëpp nga ko xool ko nga ko korte bënn bët yi di jooy yàlla xam ne tey nag laa dàq a jooy sax ndax bëgg gi ma am ci moom lu jug si man saa yu ko xalaatee damay jooy dama ko bëgg te yàlla tax nag dëgg la du alalu àdduna mais jëfam bon tax dama bëgg ndax nit boo koy bëgg da ngay xool ci li mu nekk bu dee lu baax la bu dee lu bon la ko bëgg kon bu ñu ko bëggee lu baax la wax ñu bëgg ko donc loolu moo tax ñu suñu kenn mu mel ni sa waay indi na fi ay bagage yoo xam ne yu am solo la maa nga teew caméraman bu ko defee mooy bagage yi kii mooy eh, Ndiaye nga xam ne daanaka moo jiite li nga xam ne mooy association bi di groupe bi indi yi xéewal yoo xam ne yu am solo la fii ci mbuur nga xam ne daanaka lépp loo xam ne jëm na ci ay lekk ñoom spaghetti ngi ci biir ñoom meew ci biir gone yi bu ñuy sangu saabu yaa ngi ci biir omo baa ngi ci biir bagage yi bonbon yi nga xam ne sax dafa am solo lépp maanaam njaay ak gaayam àndal def nañ ko indi ko fii ci mbuur ngeen gis kuus yi xale yi daanaka yi mën a loo mu nekk kuus yoo xam ne daanaka mag sax mën na ko utiliser bu ngeen xoolee spaghetti ya sans waa ji war misal ya nga xam ne indi na ko gaaw a ñor xale yi tey du ndox dara seen xol seen xol dana sedd bu baax a baax meew ya biberon ya gis ngeen ko bu baax a baax mu mel ni kon association bi am na jéego boo xam ni euh, sëq nañ ko fii ci diwaan Sénégal njëkkee ko Mbour euh, Ndiaye le king problème nga xam ne amul benn problème saabu ya baaro saabu ya tamit am na solo ngeen gis ko lépp lañ leen bëgg a wanal nga xam ne délégation bi nga xam ne Ndiaye def na ko euh, te it daanaka ànd ko bëgg-bëgg bu bëgg saajo maane looloo waral lii nga xam ni andi nañ ko dara manqué wu fi surtout jël ci li nga xam ne meew kuuf ba ci sokolaa ngeen gis ko yëpp daanaka yemb na fi nga xam ni mooy Mbour sunu waa ji def ko daanaka ànd ko gàngoroom tax ak bëgg gu mu bëgg Sadio Mané euh, waajaa ngi jàmbaari fakk tëdd ji mu ñëwaat ci ay kàddu yoo xam ne daanaka lii moom nekk na loo xam ne ñëpp dañ ko wane war a wane ba ba mu fës sunu waa ji am kàddu yooyu gën a yëpp ki nga xam ne moo nekk lii nga xam ne ànd nga ko gars yi def ko mu nekk lu rëy nekk loo xam ne lu am doole la Euh, asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu euh, ginnaaw ba nu sant yàlla suñu borom subhanahu wa taala mën ngaa wax si kaw sa kaw dama la image euh, ñu ngi sant yàlla bu baax di sant suñu ay waajur te ñaanal dafa a di ñaanal ay waajur yëpp waaw mu mel ni rek comme ni ñu koy waxee di ñaanal kilifa diine yi kilifa aada yi itam ñu yàgg fi loolu te wér ndax ñoom ñooy leetaayu réew mi waaye itam di ñaanal ki ñu boole muy Sadio Mané ñancoo ñancoo gu mi nga xam ne tubaarfakal masha Allah moo dëkk fële ca diwaanu Casamance Bambali région de Sédhiou nga ku ne xam ko ci ay jëfam yu rëy lool ay melokaanam yu baax lool moom Sadio Mané mu suuxaluñ ci mu baax jiñ ci mu baax ci mu baax ñu fas yéene doon mu ci moom ndax lu baax lañ gis ci moom rek moo tax ñu koy roy ah amaana bu ñu ko gisoon ci leneen itam ñu bàyyi ko fa ak la mu yor waaye lu ñuy xiirtal mooy def lu baax wane lu baax nekk ci lu baax kon mënuñoo ñàkk bañ a sant Sadio ndax coow léegi mbaboor mi yëpp moom la ndax euh, nu ñu mën a mel rek wala lu ñu mën a am wala fu ñu mën a dem jëmmam lañu fay teewe suñ jëmm yi du ci dara lu ñu def nii moom lañu ko defal ndax moom ku ne xam na ko ci social ku ne xam na ko ci jaamu yàlla gu mat sëkk jëm ko ci mbokki jaamu yàlla mi kon bu ñuy xiirtalee ci jaam ñu jëm ci moom di def lu baax dañ koy sant suñu borom donte am sax suñu bopp la ñuy defal ndax ku ne xam ne ñi ñu ko indil di ay pépinière ñu tuddee leen ay xale yoo xam ne gisuñu seen ay waajur mu mel nii xale yoo xam ne tey jii nii ah, dañoo laaj am ndimbal bu am solo lool ndax taxawaay bi lañuy soxla ci ñoom taxawaay bi nag mooy taxaw leen ci seen biir dund. ñëpp ñëw ci ginnaaw waaw taxaw leen ci seen biir wér gi yaram taxaw leen ci seen biir lekk taxaw leen ci seen biir naan donc loolu moo tax tey jii nii ñu ñu ñëw voilà taxaw leen fii c'est bon fii c'est man ngeen taxaw nii ma taxaw ci suuf taxaw yi nekk mën ngeen a ñëw nii si ginnaaw ngeen jël ko moom image bi bu paree après ngeen jël bagage bi ba yëpp ne ci ginnaaw mu feeñ quoi. mu mel ni rek comme ñi continué kàddu gi moo xam ne moom Sadio ci lii la ñu ci lii la leen ko ci leen ko fekk ñun dañoo ñëw rek ñu jéem a roy ci li mu nekk ci lu baax ñu jéem si ànd suñu kéem lay kàttan ndax itam euh, euh, fan si club Sadio Mané ñoom dañoo jël takku doon benn say. fas yéene teg seen tànk ci lépp loo xam ne mbaax la ci lépp loo xam ne ci dundu doomu aadama la tam war ko mën a jariñ donte mënuñu donte amuñu donte dañuy jéem waaye jéem lu baax yàlla moo lay fay te ku ne xam na ne li ñuy def dañoo am xool bi rekk ak yëg-yëg bi rek waaye man-man bi nekku fi bu fi nekkoon itam dañuy def lu romb li ñuy def kon nag olof di wax ne ki am. ñi nga xam ne ñooy jonga may ànd ak Sadio Mané nga xam ne ñaawuñu benn yoon ñu jàkkaarloog ay sax mu war am kàddu yoo xam ne moo koy wax ñi nga xam ne jigéen ñi mu àndal ak euh, ba ci góor ñi sax bu ko neexee waxaale ñu ngi leen nuyu. Euh, maa ngi leen di fay sëñ bi. Mhm. Euh, dinaa asalaamaaleykum wa rahmatulah. Mhm. ñu ngi fii ñu ngi nuyu ñëpp di jiital nuyoo bi nag suñu fan di Sadio Mané. ñooñu coow ko ñaanal yàlla yàlla moom tamit di rafet rafetlu bu baax a baax initiative bi donc lii lu rafet la Sadio dafa nekk nit koo xamante ne wax dëgg yàlla comme ni ko président waxee bu nekkee di wax si moom fii ba suba duñ ci jógee xanaa ñu tënk rek euh, daal di résumer paroles yi donc euh, ñu ngi naan rek alhamdulilah parce que lii yombul euh, woote dafa yomb mais ñu wuy se la moom moo jafe donc ñu ñëw fii rek Mbour pour la première fois donc commencé suñu activité si sociale donc def ko rek ngir jëmbi Sadio Mané def ko ngir cofeel bi nga xamante ni si am nañ ko si moom ngir mbëggeel bi nga xamante ni si am am nañ ko ci moom te seentum ci dara lu dul mbëggeel bi comme nu ma ko waxee woon sànq donc ñu ñaan yàlla rek euh, kenn ku ci nekk rek ñëw jàpp si liggéey bi ndax mu mën a dem ci kanam mu mel ni kor faj bi ngeen di kër dóor dal na moom wax dëgg yàlla ndax bagage yi indi am na solo ngeen ànd koon gars mu nekk loo xam ni lu am solo la wax sa mbokk jigéen ñi nga xam ne daanaka lii ñuy képp ku ko am nga ci tiyaa ba ndax ñii gisuñu seen papa gisuñu seen yaay waaye dafa mel ak say gars yi doon seen yaay waaw loolu maa ngi koy rafetlu bu baax di woo bépp jigéen rek mu ñëw jàpp si donc mu nekk acte boo xamante ni si rafet la parce que ñun ñëpp ay jigéen lañu donc ñi nekk si biir aussi nekk su euh, ay ndaw soxla famille soxla ku leen soutenir donte ne am amuñu ay waajur foofu noonu mais ñi nekk ci biir nekk fii di leen dooleel di leen jàppale donc ñii tamit sama naataangoo yi nga xam ne samay mbokk jigéen lañ ñëw pour jàpp si jóge fu nekk nag ñii jóge Thiès ñii Dakar ñi fu nekk ñëw uniquement pour jàpp si liggéey bi donc euh, loolu noonu ñu koy rafetlu bu baax a baax. macha looy wax jàmbaari fàkk tëdd bi ak i gars yi muy Ndiaye doo problème ñu nga xam ne ñàkk problème a tax ñu tuddee ko noonu. waaw Ndiaye moom wax dëgg yàlla borom baax la donc moom mooy président club bi moo moo formé lii donc moom dafa ñàkk problème ba ñu woowee ko Ndiaye no problème bi maane mu bëgg Sadio ba ñëpp xam ko nag wax dëgg yàlla mu bëgg ko ba ñëpp xamee ne que Ndiaye dafa bëgg Sadio donc ñun tamit ñu ñëw rek jàppale ko ci affaire bi ngir mbëggeel ñun tamit bi ñu am ci Sadio Mané di ko ñaanal rek di sant ñëpp di nuyu ñi fi teew ñëpp. waa man la Marème Marème Sall. chargée de la communication. waa lii moom yombul. yombul parce que ñëpp ñëpp am seen yitte ñuy dox. benn jour ñëw yàqal la ko. Mhm. mais daf koo jar. foofu ñun ñëpp ñu taxaw si. waaw di sant tamit Ndiaye. Ndiaye no problème mënoon na ne gis na Sadio mën na toog këram def lu ko neex mais toogul dafa jóg ne foo ma def benn fan si club def benn mouvement ñoo jàppale ñi nga xamante ne am nañ soxla te mënuñu koo faj ñun ñëpp ñu taxaw si ku nekk am na loo apporté tamit euh, ñëw joxe ko pour ñu mën a jënd lu ñu mën a indi fii nii. di wax lii bu doon construction dañ naan premier kii pose pose première pierre bi la. Mhm. ñu ciy sant Ndiaye bu baax ndax euh, lu yëpp moom la bu nekkul woon moom yëpp ñun suñ kër la ñuy toog. ku nekk bokkut ak keneen ki fi nga jógee fu sori lañ jógee ñëw tase xamantewuñu lii moo tax ñu xamante donc c'est une famille mën nañ wax famille la famille buy soog a judd te ñu ñaan yàlla tamit euh, mu avancé bu baax waaw di wax ñëpp rek nañ ñëw jàpp si parce que benn nit mënul doxal foog ñëpp jàpp si ku nekk indi sa connaissance ñoo teg ko ci table bi ñu xool nañu ko exploité di sant bu baax di gërëm ñi fi nekk ñëpp waaw loolu rek la amoon mooy. am na solo góor ñi koy wax wala baax waaw sama tur man la Aïda Ndiaye doomu Thiès kontaan nag lool ci présence ma ñëw fii nii bokk samay naataangoo jigéen ñi di ko def macha allah mais lépp rek ci turu Ndiaye la Ndiaye moom ndax su ko neexoon tey jii da ko yemale si boppam mais xolom bu yaatu ak xolom bu rafet moo tax tey jii ñu ànd ak ñoom fas yéene liggéey comme Sadio Mané ñi ko xam ne social. lii daal damay ñaan yàlla lépp lu ci suuf lu si xalaat ak yàlla daal ñu koy defal incha allah parce que tamit loo gis rek si benn lay commencé te te incha allah di ngeen ñu dégg fu nekk nekk na ko ma ka ka min kii kooke ko ne ne ko ko ni ko min kaare ko kam da ko Sadio Mané mi ke mo beyo jël san nen boo sa sana ko bi mba mbablo la silo ko ma bi jamal bi yedo e me so ay me kele bi yedo senegal nan kudo be bule ma keno kudo la ta ke ba ta keno parce que ngani yo nyenti ku ko ne yake ngani yo del bi visite bi parce que bu leen neexoon tey dem feneen mais da ngeen a xool ne pouponnière bi war nañ fi mën a ñëw indi fi dara que mu néew geste bi moo am importance mm-hmm. le fait d'avoir pensé à cette pouponnière d'avoir pensé à ces enfants qui sont là mm-hmm. donc ne tey dinañ ñëw communier ak ñoom ñu un peu de temps avec ces li ñu amata jàppale leen ñu leen ci remercier bu baax mm-hmm. di ñaan action yi daal di à l'avenir perpétuer wu te tamit seen fan club bi gën a dem ci kanam di remercier aussi Sadio Mané parce que gis nañ bu baax gis nañ bu baax ñi muy jàppalee askan bi ñi muy jàppalee waa doomu euh, Bambal yi ak ñeneen ak ñeneen œuvre sociale yi muy def ci ci ci Sénégal donc ñun gis nañ ko ñi ngi koy magnifier bu baax di ñaan aussi yàlla gën kaa may wér gën kaa taxaw donc euh, voilà parce bi gën a dëgër dëgër li mu mën yàlla gën ko cee jàppale ba mu ngi social bi nga xamante ne mi ngi koy def mëbët bi mu am ci nit ñi yàlla gën ko cee jàppale ba mu gën a yokk incha allah en tout cas Sadio. nekk sa ginnaaw am nan pas-pas boo xam ni ma yaakaar ni boo ko gëmee mën naa romb foo xam ni moom ngay xalaat. voilà donc loolu lañ ci bëgg ñu gëm ko takku ndax ñu ma ko wax sàng rek yoonu dëgg moom du yomb boo ci nekkee seytaane dina la dugg la yàqal boo ci amul gëm-gëm da ngay dem ba mu jóge di génn ci loolu. ndax dëgg moom daa yëngu dara kon dañuy takkuwaat rek ni ma ko waxee kon si club bi ay jàmbaar la kenn ku nekk yëkkati nga la nga am ci sa wërsëg mu néew baa mu bëri nga dimbalee ñi nga xam ne ñoom ko tane te ki def dërëm ak ki def junni ñoo ñoo yem ndimbal ci yàlla yàlla suñu borom subhanahu wa taala yéene ji rek lay fay te yéene moo ëpp jëf fay ñun ku fi ñëw ku fi joxee dërëm bu amoon million def ko ndax ki ki joxe dërëm wala ñaar dërëm bu yoroon milliard parce que kooku am na mënuma leen woo ba nu wuy si ma yàlla kese leen gis si man wala yàlla kese moom la ñuy defal parce que du sama jëmm ji ndax sama jëmm ji xeebu ji dara nekku ci loo tax ma war leen mën a woo ni wuy si ma waaye nag dañoo ànd ak ku jar a àndal koo xam ne ku ànd ak moom foo taxaw ñu bëggal foo waxee ñu naw la foo waxee ñu déglu la ndax moom daa toll noonu muy Sadio Mané ndax moom bu ku ne xam ne ku ne koo xam Sadio Mané xam ne social moo ci miir ku ko xam ndax moom jumaa yi day defar jàkka yi day defar hôpital yi day defar yëmu ca sax dugg ci hôpital di leen faj kon kooku yaakaar naa ne ku ko roy di roy lu baax mu mel ne bu ngeen jógee fii yaakaar naa ne Sénégal dina war a daje euh, ci match bi nga xam ne moom lay am ci stade Maître Abdoulaye Wade am na beneen programme boo xam ni yaa gars yi war ngeen faa daje ci buntu bu def benn banderole boo xam ni fu gars yi nekk ci biir réew mi wala àdduna bi danañ xam ne ñi ànd ak Sadio Mané ñu gën a taxaw incha allahu taala la ñu fas yéene dinañ euh, fas yéene bu fii nii waajal mag si bii di ñëw incha allah mag ma mag Massambik waaw la ñu war a dajeel fële ca eh, sat bu laay wat comme ni ñu ko waxee rek ñu àndaat continué waat liggéey bi ndax itam liggéey bi nii rek lay doxee saa su nekk na ñu ànd takku doon wenn say bu mag si bi jotee comme ni ngeen ko defee nii li ngeen ko defee waat noonu ñu ànd dem jàppale suñu ay doomi réew ndax itam dañuy nuyu population Sénégal parce que ñun ñëpp ay moom la ñuy moom la ñuy nekk ci liggéeyam di ca dox waaye ñoom ñëpp suñuy leader la ñoom ñëpp suñu doom la ñoom ñëpp suñu mag la ñoom ñëpp suñuy rakk la te dëkk bi benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar fi baax ci réew mi lay des lu fi rafet ci réew mi lay des lu fi taaru ci mee ko moom kon nañ dellu siwaat euh, jàmmuwaat yàlla tegaat ci réew mi xam nañu ñoom réew mi ndax lu fi yàqu ñun la lu fi defaru ñun la te réew mi réewum Sénégal jàmm rek lañ ko xamee donc ñu ngi ñaan euh, ñi nga xam ne ñooy fan si club Sadio Mané bii nga xam ne ñoom laa àndal ñu fas yéene dem fa la ci Sabulaay Wàdd comme nañu defee nii ñëw fii ci pépinière yi fi nga xam ne moo di mbuur ñu waaj ko bu baax te xam ne ñun lépp lu Sadio Mané nekk suba ngoon jot dinañ ci fas yéene xëy baa ñu kontu ndax moom euh, suñu sag la dañ koy safoo bu baax ndax sa nee naa Sadio Mané école la booy wax ci moom mën ngaa wax ci moom soo mun a wax ay jëfam yëpp ndax dafa bari lu muy def ci loo xam ne yaa ngi koy gis ak ci loo xam ne gisoo ko te li muy def ci suuf sax moo ëpp li muy def ci kaw dëgg la nag jaxasoo naa ak moom jaxasoo naa ak ay mbokkam ndax nit ki moom boo ko bëgg ba mu xam ne da nga ko bëgg dina la téye ni nga ko téye te loolu yàlla def na ko sama diggante moom téye na ma ba ma yëg ne téye na ma mu ngi wax ak man itam ñu ñu ngi déplacé woon te di demalante di dikkalante donc loolu yëpp ñoom gis nañ ko parce que xam nañ fi ma toll si moom te xam nañ fi ma moom ma toll fi ma toll si man kon loolu yàlla rek la ñii fi nekk nii itam yàlla xam na ne Eumeu Sène ko fay ndax ndax Eumeu Sène ko fay mooy euh, loolu moo tax ma leen woo rek kenn ku nekk jógee Thiès ñu jógee Tamba ñu jógee Kaolack ñu jógee fu nekk di ñëw pourtant du sama jëmm ji de mais jëmmi Sadio Mané leen gis sama jëmm ji rek topp ma kon mënuma mënuma def lu dul sant leen te di leen ñaanal yàlla suñu borom donte man lañ jiital maa nekk président bi mais ñoom ñëpp ñoom ñëpp ay président lañ parce que bu nekk euh, man nga li ma te xam nga li ma xam man ngaa def li xam ne si nii euh, mën nga koo def donc daal mu ngi santaat euh, doomi réew mi yëpp di santaat sénégalais yi di wax ne tey nag vraiment bëgg nañ bu baax ci première suñu départ bi nga xam ne moo lañ am muy suñ première édition bi nga xam ne ñu ngi ñëw fii ci pour ñëw jox ay don pour suñu ay doom suñu ay sët suñu ay jarbaat ndax nag euh, comme ni ko wax sànq rek njaay noo problème moom ku ne xam ne boo nee njaay noo problème doo ci bu Sadio Mané boo nee njaay ne njaay bu Sadio Mané donc ñun daal ñu ngi sant bu baax di sant Sadio Mané di ko wax ne daal say rakk ngi nii dina nekk ci yenn secteurs yi di la taxawal ci yenn côté yi nga xam ne yaa fa waroon nekk mënoo fi egsi ñu ngi fii nii di di la ci bépp liggéey donc lépp loo xam ne si daal euh, euh, euh, social la ñu ngi ciy dox voilà Alaaji Malick dafay daal di wax ak yi ñoom ku ci bëgg a bokk ci fan la bàyyi leen message boobu ma ko di nuyu tamitam sama dëkk bi ma jógee muy Touba Sew Xay ndax dëgg la noonu sax bari ñi laa nekk waaye sama dëkk dëgg dëgg mooy Touba Sew Xëy nekk ca croisement Ngoundiane waaw Sew Xëy mu ngi nekk diggante Xombal ak Thiès foofu mooy samay sama cosaan cosaan mooy samay waajur fa lañ nekk samay doom fa lañ nekk samay soxna fa lañ nekk samay kilifa fa lañ nekk donc foofu laa foofu laa jógee di ñëw bari di fa yëngoo lu yëngu waaye sama dëkk dëgg dëgg mooy si Touba Seew Xay maa ngi nuyu waa Touba Seew Xay googu nag xam ne samay yaay ak samay baay ak samay lépp fa wax na seen doom a nekk ci liggéey bi di sàkku seen ay ñaan bu mu toll ci yéen incha allah taala dañu mel dañu rek jox ñi nga xam ne ñoom lañ bëgg liggéey bi incha allah ba jotaat ci kaw. parce que kii bi ñu lay jël ci jamonoy Sadio Mané ba bënn bët yi di jooy sa yoo xam grand boobu bii moom su ma la ci ma. grand boobu waaw ba dama ko jël. Mhm. teg ko à côté ma tool mhm. parce que dama ko bëgg. dina euh, grand dafa nekk sama grand boo xam dama ko bii dama koo fóon mhm. maanaam. may xaar ba Sadio Mané ñëw rek signal ma ci. signal la ci def ci benn signature. moom non loolee ci match bii ñu ñëw. moom bu soobee yàlla. bii dafa mu gën maa neex mooy. bi ma ko solee ku ko gis. Mhm. dañuy xam ne kii doomu réewu Sénégal dëgg la te mooy beneen bu dul drapeau Sénégal. kii mooy suñu drapeau mooy suñu nationalité foo ko wone dalaa war a jox ko cër ma jël ko nag ànd ci suñu doomi réew mi Sadio Mané wax dëgg yàlla grand bi daal fonk naa ko daal lu ma fonk la dama ñàkk ko wutal spécial euh, batan boobu dafa laa ah, xam naa ne sax fi ñu toll nii damay daal di soumis bi nag daal di euh, si club bi comme damaa am fan si club bi nit sa Ndiaye noonu.